a passé un je veux plus que Et tout le jërëjëf mbokk yi xarit ci ànd bi ak teewlu seen chaîne lay nekk vendredi ñu ñëwati ci seen numéro bu bees seen émission si près si loin fii dans de l'hôtel Colonia tey ma am mbégte ak contenté une icône du sport sénégalais de l'athlétisme sénégalais, plus précisément de l'athlétisme africain, de l'athlétisme mondial. ki nga xamante ne ba léegi record am mënuñu fexe ba battre ko sur le plan national. Vous l'avez compris, ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Amadou Gakou, spécialiste 400 mètres. ñu nar a ñëwaat nag revisiter waat li nga xamante ne moom mooy carrière am ses souvenirs mais surtout li nga xamante ne. moom mooy mbébétu ñenn ñoo xamante ne dañu yëngu ci wàllu tàggat yaram reconnaissance ci ñi nga xamante ne dañu yóbbu raaya Sénégal fu sori tey wax ci du bëri du ñu def lu dul bàyyi leen d'ailleurs ngeen suivre li nga xamante ne moom mooy arrivé fii bu ko defee ñu daal di tàmbali li nga xamante moom mooy laaj yeeg tontu yàlla c'est parti. jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ak euh, teewlu ginnaaw ni ma leen ko waxee woon à l'entame de mes propos tey ma am mbégte loola contenté dalal fii celui qui a battu tous les records et d'ailleurs record am est vieux de plus demi-siècle tey nag may dalal Amadou gàkku ancien international sénégalais ancien athlète euh, nga xam ne euh, dominé na li nga xamante ne moom mooy spécialité muy 400 mètres wala 4 fois 400 mètres tey ñu nar a revenir revisiter ni ma leen ko waxee woon ce parcours laa gën a fàttali sénégalais ki nga xamante ne moom mooy Amadou gàkku dara ñuy tàmbali nag laaj yeeg tontu yi du ma def lu dul bàyyi ko doyen. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu. Euh, waa télévision yi maa ngi leen di nuyu di leen sant. Uh-huh. Euh, di leen gërëm particulièrement parce que itam gis naa farlu bi nga ci am. parce que nit ko lu koy lu la rek soxol la. Mhm. kon nag euh, comme dama koy faral di wax toujours rek ñu ngi dans les archives ku ñu ciy jëlee wax ci suñu yëpp dana permettre normalement ñi nga xamee ni fekke woon nañ ko ak ñi ko fekkewul woon yëpp mbir yi comme ça bu ko defee ñëpp xam kii mooy kan. Uh-huh. waaw ñu jox la sa gëdd. Euh, vraiment di leen ci encouragé bu baax parce que boo nekk ci archive ñu dépoussière la doo am lu dul gërëm. ça fait plaisir <laughs> am na fu mu commencé mais amul fu mu yem. amul fu mu yem absolument en tout cas moi aussi je suis très très fière de vous recevoir. Euh, loolu nag ci njeexital li incha allah émission bi dinañ si ñëwaat ndax je rappelle que le 25 mars prochain di nga fêter sa 83 ans. incha allah incha allah alors mu nekk benn parcours bu riche bu extraordinaire. Euh, waaye balaa ñuy ñëw mhm. ci athlète bi mhm. ak ni mu tàmbalee diggante union euh, indigène sportif indigène oui union sportif UESI ba US Gorée euh, ak ni la àdduna wërngal këpp di di découvrir dama bëggoon un peu ñu ñëw mhm. ndax gis naa ne Sénégal dakaar gi nga cosaanoo fi nga gane ci àdduna Euh, fan nga exactement Amadou Gàkku fii man euh, samay waajur ñu dëkkoon Médina euh, rue 23 angle 22. d' accord waaw moom nag hôpital principal laa gën àddina. d' accord parce que suma mhm. foofu la doon liggéey. d' accord foofu laa gën a àddina le 25 mars 1940. de fil en aiguille ñu ngi dëkkoon 27 après bi nga xamee ni sama xaritu papa ñoo dëkkoon. ñuy ñëw rue 23 ñu jënd fa kër bu jënd fa kër ñëpp njaboot gi mu dugal ñu fa alors de fil en aiguille foofu laa nekk ba nga xamee ni bu ma amee juróom-ñaar juróom-ñaar juróom-ñaari at mhm. lañ ma yóbbu Tiwaawan sa sama maam ma yaroo foofu bi nga amee sept ans ñu yóbbu la Tiwaawan waaw loo tax ñu yóbbu la Tiwaawan dañ ma yóbbuwoon pour ma d'abord pour ma jàng alxuraan ensuite ñu dugal ma laa soog a dugg école primaire. toujours à Tivaouane ou dañ la andiwaat Dakar. déedéet Dakar laa nekk. Tivaouane ba léegi yaa ngi ci sa maam waaw sama maam. waaw ne moo moo moo euh, moom. Mhm. mu nekk ak mu nekkoon soxna soo xam ni ku xarañ la dama doon jàngi alxuraan. Mhm. bu ma bu ma bu dalee école. boole ci ak alxuraan bi. nu mu mun a demee mooy su ma wàccee damay dem ca daara ja jàngi ba ba gee ma ñibbisi bu njëlee mu dem jàng ji alxuraan bala balaa école di ubbi moo ñëw ndekki soo ko dem école ba suma suñu kër soriante wala école primaire bi. d' accord donc très tôt da ngay xëy suba. dem jànge alxuraan. Mm-hmm. balaa huit heures nga ah. ñëw ndékki. soog a dem nag école française ci école ba itam ma fekk ñoo xam ne maa ngi ñoom bokkoon classe Ibrahima Fall ancien ministre des affaires étrangères. benn waaw professeur Ibrahima Fall waaw. ñoom laa bokkaloon ak tant d'autres ñoo xam ni fàttaliku naa li ci ñu bare bëri bëri nag ba pare nag euh, ma am benn xarit boo xamee ni moom euh, si euh, Pape Si Malick. sëñ papa sëñ Pape Malick Malick Si. d'accord moom bu mu formé équipe de football moom ba nekk ci équipe de football ba. caatu caatu sëñ Babacar. waaw waaw macha allah. d' accord donc yéen a doon fowandoo. waaw ngeen di ngeen di def seen i éco i. kii équipe bu football mais moom football loolu dafa créer équipe bi. d' accord pour que ñu def ñoom ñoom Iran Ndaw ak ñu ma kenn xamul yooyu yëpp ci la ñu bokkoon. seen équipe ba naka la tuddoon. verte man daal defe naa man dama ko woon wax ni xaw ma amul beneen tur lu ma waxoon ma ne ko ñun ñoo fi mën na koy tuddee équipe bi. mu ne ma waaw yow Amadou yow <laughs> xereñ nga de ma ne ko ah ñun ñoo fi mën de la de wax. Ah, ñun ñoo fi mën waaw bu ko defee chaque fois bu ñuy football suñu jom la ñuy àndal. d'accord boo ñu boo ñu doon dóor sans itam du teew li ñu war a def danañ ko def loolu am na foofu. ngeen continuer ñu continuer di jàng. d'accord amoon aussi tam benn waay bu ñuy wax voldu bu ñu den def euh, euh, kii euh, duñ koy tuddee am na booy jeu bu ñu doon def. Euh, par exemple drapeau lañ ko tuddee. Mhm. ñii dañu far fii ñii far fii. alors bu ñu numéro un ku nekk dañu lay dox numéro un ñu teg affaire bi ci digg bi man daanaa ñëw ba këf affaire ba dem waa du agsi. <laughs> ndax sa point de ndax sa point de vitesse. loolu tax ma ma ñu ma daa ma ne mukk football rek. d'accord maintenant nga nekk Tiwaawoon di jàng di hmm. jàng. ba ba ban classe. certificat d'études. d'accord ma jóge fa ñëw Dakar nag. ci nga soog a ñëw Dakar waaw ñu dugal ma école Salcère bu nga nekkoon Gueule Tapée waaw fa laa def ba. école bi euh, sorcière la tuddoon. Euh, waaw kii waaw sorcière la tuddoon. d'accord waaw. Euh, directeur la dama fàtte surtout mais ku ku xarañoon la woon école privée la woon. d'accord ñu dugal ma ci. alors léegi moo jógee foofu comme dañ ma gisoon éducation physique xam ne def sport. ah ñu ni ma léegi da ngay football ji ci laa soog a dugg ci équipe de bi Uezi. donc avant l'indépendance ah. waaw mais boobu boobu ah, avant ah, l'indépendance bon alors ci. mais boobu ban at nga am. boobu j'avais euh, bi may def sama primaire par exemple j'ai fait si si sixième cinquième troisième ci laa def kii bon bon avec à près six ans. waaw parce que redoublé naa benn yoon ah. d' école école ci école primaire. école primaire d' accord alors noonu ngeen parce que jamono jooju. Mm-hmm. jusqu'à présent Sénégal boobu jëlagul indépendance. Mm-hmm. boobu 1960 jotagul. jotagul da ngeen doon def. football bi ma doon. sport football. football waaw. ma dugg union sportive indigène UESI. UESI waaw yàlla tombel ñoo xam ni ku ñuy wax euh, Jara. Ibrahima Jara Pacha Ibrahima Pacha. moom moo la encadré waaw ba bu baax sax. bu pare ñun li ñu doon def dañ koy def ah. li mu def surtout lu mu gënoon euh, def à l'avance mooy travail hivernal daf ñu daan wax ni yéen ay ouvrier ngeen. mas par exemple mu ngi lay jàpp maçon. boo bëgg a def juróomi état yi fondation ba am fondation ba mooy travail hivernal. mooy travail hivernal daf ñu doon sonal ci travail hivernal. d' accord donc peut être boobu yaa ngi am ay 16 ans. 17 ans waaw 17 ans euh, waaw. mais moment boobu yaa ngi continuer di jàng ba léegi wala. ou bien moment boobu arrêté après bon ma mujj a ma mujj bàyyi ñu ni bon léegi affaire sport bee ko génne foofu ñu dem yóbbu ma may jàng euh, soudeur. soudeur euh, mécanique soudeur mécanique. autogène mhm. ak électrique jàng Jules Ferry daa daan dem d'accord alors pour anecdote bu ñë liggéey atelier bi ñu nekkoon mada fer la tuddoon dañ doon defar ay lal ak yëpp alors benn naar moo ko moomoon mhm. alors léegi ñee nekk ci atelier ba comme dama yoroon vélo maay jëli seeni añ Médina di ko indi rue Jules bu ma ko indee benn am na ci benn euh, affaire bu ma ci mos a dal sax ma fekk rek benn bool boo xam ne ndekete dañuy def ay légumes yu ma kenn xamul ma ñëw takk sama kii def ci <laughs> yóbbu ci wàllum xaw ma ci dara bi ma ñëw di ubbee pour ñu añ ñu fekk ay pulooxa ak <laughs> ñaam bi <laughs> ñaam bi gars yi dama yow loo def mu ah, yéen a te ma ne bu ma tardé. wala non non dama huit jours férié dama doon jaar sama vélo. Mhm. avenue Faidherbe ñëw ci mairie ba. jubal directement rombu rombu place proté la woon lu mu doon place de l'indépendance jàdd ko bala ngay àgg euh, président de la république Jules Ferry foofu laa daan jàdd foofu laa daan liggéey ay lan la d'affaire nga nekk di def ah. soudeur euh, nekk soudeur métallique euh, ba pare nekk aussi ci li nga xamante ne moom mooy football bi football bi nga nekkoon nag un bon ailier waaw waaw alors nga jékki-jékki ah. mais à chaque fois lu taxoon nga tenir coûte ko ah, coûte parce que dama lay dégg ci sa intervention nga ne ah, ah, même pour nga def athlétisme il a fallu ñu convaincre la convaincre la convaincre la parce que xam nga lu ci nekkoon mooy bi ñu ma yóbboo football yi étant junior man dama gaawoon trop wala moi je peux que ni sax peut-être maa tax ñuy def ay défense en ligne parce que dama daan ñëw ba centre uh-huh. mes partenaire dañu nekk si ginnaaw su ma leen yuuxoo def la et puis jarone del booy dribble xoolal booy déborder xoolal ba maa fi gënoon mën centré en mouvement di daw rek centre jékki-jékki rek centré ñu bari mënuñu ko woon footballeur yi waaw ci wees yi moo def ni alors léegi ñu dem ba senior mhm. di football bon léegi mu gis daal moo ma ni ma gaawee teg sama nijaay dirigeant la woon da doon football Baw Day moo moo la famille Ndiogou Seck Pape Seck Rue foofu la ñu bokkoon jógu ancien góor de Gorée mu ngi ci dëgg maa ngi ci fen voilà voilà moo sama nijaay la ñoo sama yaay ñoo bokk euh, baay alors léegi ñu ñu ma daal léegi comme loolu la euh, da ngay dem gore ma dem Gorée au ma dem athlétisme ma dem football. nga dem ci football ma dem football. mais mais lu taxoon nga tenir ci ci football bi. bon dama dem woo nangu woo woon athlétisme. nangu ma woon athlétisme daal ne yoo daal waaw te man euh, esprit bi ma amoon. athlétisme man dama doon wax ni parce que man fu lu ma def dama def sama jëm tolluwaay kàttan alors dama doon ragal nag bon bu moo tax bu ñëwee bu ma ñëwee cent mètres deux cent mètres laa doon def sax athlétisme mais li tax ma dem foofu sax euh, athlétisme sama nijaay def na lu ne man dew naa lu ma trois semaines ma ne du ma du ma entraîné. parce que pour ah, yow moment boobu football ah, bi moo d'accord wala bien que lu ko indi dañuy demoon ñu yóbbu Gorée léegi ma dem à section athlétique ma dem football. fekk fa ndim si yàlla si Sayer Sène ñoom ñu sago ña entre ñaari camps yi bu ñuy rawante ma raw leen. d'accord finalement entraîné bi ne xam nga lu am des bu ñu bu ñu sonal. Mhm. demal nga dem dawi ji. bon d'accord mu dem dem dawi ji ñëw ñu ma looy def man leen man comme Sénégalais boo ñu gis rek mu ne vitesse. 100 mhm. 200 laay de mhm. de fil en aiguille ah ñu jant entraînement ma gis gars yi ni ñuy dawee voilà am vieux David papa yi Ablaye Faye mu nga ca dëgg moom rek ñoom ñaar yëpp ñu ngi dëgg maay fen moom suñu dirigeant la woon Gorée suñu section de tir mu ne ma ah da ngay dem defi quatre cent ma ne quatre cent mètres ah déedéet ñu ah da nga ko essayé avant fête de l'indépendance ah ah parce que boobu nag ñu ngi dugg ci année. soixante voilà waaw léegi bi ñu defee loolu munuma da ngay essayer rek. bon bon cent deux cent lay def ñu am compétition xam naa li ni ñu daan daw xam lu ñu doon def place lañ doon def rawante man ma xëy rek tukki dama ñëw xëm. dégg naa. dama ñëw xëm sa première daaw da nga xëm. waaw xëm alors beneen bi bi ma xam itam mooy. de l' dañ daan woote. ñu nga xam ne ay sénégalais yi nekk France ñu ñëw di daw. d'accord léegi loolu dinañ ci ñëw. parce ah. que course bi nga xamante ne disputé nga ko. Mhm. en 1960. Ah. bokk ko ak ah. ku ci mel ni Abdoulaye euh, Abdoulaye Seye ñu gën ko xam te Abou Seye Abou Seye euh, yaa aussi Bernard Dibonda Dibonda loolu dinañ si ñëw mais dama la bëggoon wan benn première photo bi bi bi lan lay rappeler doyen bii mooy stade Iba Mar Diop. Mhm. la woon suuf dañ koy dër ba pare daw ci suuf la woon amul synthétique. amul woon piste bi amul woon si jamais que couloir bu woon dégg ci dof dof ba tombé couloir corde bi dafay laboure parce que coureur de cinq mille dix mille yi ci la ñuy daw. coureur de huit cent yi ci la ñuy daw. boo ci tombé ay kan da nga boo doo sax àggale parce que ay pax lay nekk. foofu sax trouvé naa ci benn anecdote bu ñu ñëwee 1965 ma wax la lu tax ma gën koo bañ sax parce que waaw. parce que d' accord ah. dina ñëw ci 1965. Ah. mais dama bëggoon. Mm-hmm. en même temps aussi wan la. Mm-hmm. Euh, beneen photo muy euh, Abdoulaye Seye. Abdou Seye parce moom aussi. ñu gën ko xam ci Abou Seye c'était un grand athlète sénégalais franco-sénégalais parce que jamono yooyu aussi France France da ngeen di am nationalité da ngeen doon am double nationalité ci la ci la jamono Jeux olympiques Rome mu jël deuxième aux deux cent mètres parce que lui il est médaillé olympique on n'en parle pas on n'en parle pas moom moom c'est le olympique bon boobu tax li tax mu diñ wax lu bëri peut-être moom euh, tu que France la woon il était français. foofu foofu lay France. foofu mais sinon euh, Beretti bu bu nekk italien moo ko raw. Abdou Seye du cent mètres deux cent mètres ba quatre cent mètres kenn mënu ko woon. d'accord alors moom benn ah. moment. Mhm. nekk na sa entraîneur. waaw euh, mais balaa muy nekk sa entraîneur euh, bu ma la nee 1960. waaw waaw ñu fêté indépendance. ngeen war a daw ci kanamu chef de l'État. ñu invité leen. bi ñu leen invité moom ak Bernard Dibonda. bi Dibonda ñëw ma ne tey ma raw leen. ñu ne ah ñii France lañ jógee dama ma man dama arrivé rek xam. fa ma fekk fa mu ba mu ximali ko mun ma yow ku am avenir nga ci lii xam nga ñu ngi jóge France cent mètres yi mujj yi lañ la romb mais da ngay ni ñuy ñaan nga continuer ci lii danga gis li nga la depuis l'année bi xa ça s'est prouvé kaw nga ni ki man. kuréel 400 mètres laa d' accord alors euh, xam boobu. Hmm. lan moo ko doon waral parce que xam bi en fait. non non bëgguma bëgguma ñu anticiper. Uh-huh. mais gis naa aussi ne Mexico tamit. xam-xam xam nga fa. foofu foofu effet de l' altitude la. foofu effet de l' altitude la. d' accord fii nag. Mhm. moom dama dama dama moom comme li ma naan wax rek sama cemtulaay kattan moom waaw cest li ñu ah. naan dem ba jeex. dem ba jeex voilà. yow loolu sa doctrine la woon doyen. dëgg la d' alors bi ñu jógee 1960. waaw nga jël troisième. derrière deux années yoo xamante ne quand même. Ah. mu nekkoon lu logique. c'est-à-dire ah. ñoom ñoo la ëpp ah. expérience. ba pare bi ñu nekkee au niveau aussi nekkagoo ci woon. vous veniez à peine de de député vous aviez vingt ans. ñu jëm nag ci jeu de l'amitié parce que jamono yooyu. jeu de l'amitié. moom moo moom moo xewoon. Abidjan lañ njëkk ngeen dem am ngeen dem Abidjan en 1961. foofu. nga waneeti fa sa bopp. 1961. nga jël li nga xamante ne moom mooy. 400 mètres bi. individuel 4 fois 4. jël 4 4 fois 400. relais bi. loolu naka nga ko naka nga ko dundee euh, doyen. ba pare naka ngeen ci liggéeyee. moment boobu luñ ci luñ ci liggéey mooy fii bi ñëwee euh, dañ doon def travail hivernal. d'accord dañ doon am ah, am possibilité. def regroupement stade Iba Mar Diop. Mhm. boobu tam feu Ngor Bocandji moo yoroon restaurant bi foofu. d'accord di di di toggal mais su na def travail hivernal comme li ma ko waxee rek travail foncier la ñu doon def amu doon dugg salle de musculation déedéet euh, Cambérène dafa diggante Cambérène ak Yoff dafa amoon ay dunes dunes de sable foofu lañu doon dem di yéeg suñu échauffement xam nga lu ñu doon def hmm. Cambérène euh, Yoff aller retour ñëw def ay mouvement commencé yéeg euh, dunes yi loolu moo doon seen échauffement loolu loolu loolu moom lañ doon mooy suñu effort ba pare nag def travail travail euh, physique di ko def alors bu ñu la waxee nii tout le temps dañ ko doon def euh, deux fois par semaine bu ñëw ba ñu nga xamee ni piste yi ko commencé na ci la dem di def ay fraction de de ay des cent mètres deux cent mètres léeg-léeg la demal boo demal nga def euh, trois fois trois cent mètres wala nga def suñu programmation daal. dañ doon suivre normalement. ñi nga xam ni semaine bi dañuy def technique surtout a milieu de semaine dañu daan def travail technique c'est-à-dire jàng départ jàng ni ngay def say foulée. Mhm. jàng par exemple amplitude fréquence dañ lay jànga loolu yëpp. alors en dehors de ça chaque échauffement da doon def école du coureur adaptation ni ngay def eh, eh, eh, kii ni nga ni nga ni nga ni nga war a dawee. waaw ni ngay teg sa tànk ak pointe du pied ni ngay dérouler ak yëpp très relâché ñu ngay def relâchement ak yëpp loolu lañ doon def waaw d'accord c'est-à-dire malgré infrastructure bi nga xamante ni amul uh-huh. quand même li ngeen war a liggéey pour euh, ngeen gën a ñoŋal li nga xam seen wàllu course uh-huh. yéen a yéen a koy def uh-huh. même si les conditions sont difficiles mais foofu dama bëgg parce que tey dañu bëgg a revisiter page souvenir bu athlétisme sénégalais athlétisme africain da fa nekkoon ci relais 4 fois 400 bi avec aussi d'autres grands noms de l'athlétisme sénégalais ku ci mel ni ay ñoom Momar Ndiaye votre euh, capitaine euh, capitaine Sarr Aliou Sow waaw waaw ah, le faux Aliou Sow oui ak euh, ku mel ni Daniel Daniel Thiaw oui waaw ah. ah, Daniel aussi tam quatre fois quatre bu 65 bu ñu accès. Mhm. ci la bokkoon. moom moom bokkaat na 65. waaw 65 jeu de Brazzaville. d'accord waaw. mais 63 euh, bokk ci. Mhm. bi ma bi ma doon dawanoon. waaw moo moo nekkoon ci 4 fois 4 bi. d'accord man ma kat fois 4. fois 4 bi Bernard Dibonda ak euh, ñeneen ñoo xam ne Mambey ci la bokkoon. mais yow ku ñuy wax Barsada. ba mhm. déedéet Barsada bokkuloon Barsada quatre fois quatre ou Abidjan ba la bokkoon. moom la bokkoon waaw waaw. ak seen capitaine euh, Mamadou Sarr waaw capitaine Mamadou Sarr. d'accord ak euh, benn un c'était Fall Abdou Fall. d'accord ñoo bokkoon quatre fois quatre quatre fois quatre Dakar. d'accord waaw alors. ngeen jógee euh, en 1961. fi nga xamante ne. Mhm. moom mooy Abidjan. ngeen ñëw cette fois-ci Dakar. ndakaar aussi mm-hmm. mu nekkoon rendez-vous bu am solo mm-hmm. parce que moment boobu mm-hmm. diplomatie bi ñuy wax ci sport soft power bi dafa existé woon avec les chefs d'État yoo xamante ne yu ci mel ni Léopold Sédar Senghor et et autres yow vous êtes jeune mais nga commencé di marquer l'esprit c'est-à-dire imposer wu nga Sénégal parce que y avait des aussi mais sur le plan africain yaa ngi gën a présent mm-hmm. en 1963 il fallait que ngeen ngeen sauver la face ah. mais boobu doyen naka nga ko dundee parce que damay gis ci archives yi ñuy wax ne euh, des fois certains Nigérians surtout ay 100 mètres yooyu ñoo doon ñoo doon ñoo ñoo doon jiitu ak Gawsu aussi Côte d'Ivoire ivoirien voilà waaw alors Ghanéen euh, euh, président Léopold Sédar Senghor mu toog ak ay homologam africain mm-hmm. et puis pour rappel aussi ñu ñuy seetaan pendant ces Jeux de l'amitié France aussi daf daan daf daan participer di andi ay ah, athlètes ah, am ah. nga war a daw. quatre mètres. war a war a sauver. di nga xamante ne moom mooy les les meubles. jour jour boobu pression boobu en tant que jeune naka nga ko dundee. et à et à domicile. ni ma ko dundee parce que domicile dañu entraîner bu baax a baax a baax ba nga xamee ni dañu bàyyi loon un arbitre. bu ñuy wax Alsane sec mu ñu doon surveiller. yéen fan ngeen doon regroupé wu. parce que maa ngi ci biir Ibamaar ah, ci biir. waaw waaw fi mu Ngor ba Kànji waaw waa ñi a def euh, kii euh, kii professeur d' éducation physique les maîtres des maîtres d' éducation physique école boobu foofu lañ ko sampoon. foofu la jëkkee avant ñu ko yóbbu Thiès. incha allah waaw ñun fii la ñu préparé wu euh, di di dem tout le temps travail hivernal bi ñu ko defee alors foofu la ñu doon dem jóge foofu di dem Cambérène deux fois par semaine bu ñu jeexalee stade Iba Mar la ñu doon entraîné lu ñu doon def mooy stade Iba Mar Diop centre la woon bu ñu bu ñu entraîné ba pare euh, day am jour yoo xam ni dañuy ñëw def ci ndox wis ko de ay rouleau rouleau pour dëraat ko pour pax yi seen pax yi yëpp yëpp remblai yëpp waaw loolu la doon def foofu alors itam bi foofu la jëlee regroupement pour dem au jeu de de l'amitié. d'accord c'est-à-dire. Ah, ah. ñu dem nag fi ah. nga xam te ne moom mooy stade Demba ndax au début stade Demba Diop. stade de l'amitié. nga nga nga daw. nga nga nga gagné ci 400 bi. gagné aussi ci 4 fois 400 bi. relais jour boobu après bi leen euh, Léopold Sédar Senghor président bi recevoir parce que dinaa la andi léegi photom parce que damay lire ah. ci regard croisé benn mm-hmm. livre ah. où Youssouf Ndiaye ah, benn di revenir ci ñoom football oui parce que ñoom aussi ci jeu de l'amitié yooyu en 1963 ñoom ñoo gagné ci ci ci football bi c'est presque l'équivalent d'une d'une coupe d'Afrique euh, des des des des nations est-ce qu'après le le chef de l'État Léopold Sédar Senghor vous vous avez reçu waaw de recevoir nañ parce que itam benn anecdote am na mm-hmm. man euh, Euh, d'ailleurs dama lay wan photo waaw ah, ah, waaw mu ne woon fii mu doon wax euh, ñoom bi mu nu recevoir mhm. soyez honorés vous qui avez honoré la nation. c'est ce qu'il vous avait dit ci chevalier du mérite l'ordre du mérite alors ça fait mu nekk benn buum boo xam ni boo xam ni mosuñu ko euh, décoré wala yooyu bon ak esprit bu gàtt ñu ne ah xëy na de kii de bu ñu paree. dana am du ñu jox weccit ñu yóbbuwaale mais ci ma dama am anecdote boo xam ne ni euh, ci jeu de ci laa ko dañ doon defar euh, seen sonorisation daal di wax daal di wax résultat technique yowoon Abidjan ñuy wax ko gañu ma ah sax nañ la de yaa gañe woon fële fexeel ñee ñu seen résultat yooyu foofu ñu ñëw di ko seen rajo yi wax ko loolu euh, bu ñuy demee départ ñu ne ñi kii ñëw na sa papa nga ne ci kaw ci biir kii seetaan. am 1963 waaw sa papa ñëw stade waaw moo doon moo yi trésorier daayiratul kiram ñu ne ah góor gi moom affaire ul islam yëpp ñu moo doon mhm. ah, ah, ma door. ñu ne nag fii daal moom tey la tey moom disait l'autre là ma ne dem man daal comme dama loolu di def tout ça man ni léegi day dem dem ba jeex rek. góor gi daal du ma ko loo fii ñëw na di mosul seetaan athlétisme mosul seetaan sax sport ñëw di seetaan si sama cemtalaay kàttan dégg naa góor gi daal ba muy viré bu muy dem premier virage deux cent mètres yi mu presque dafa ànd ak man ñëw ñu ne ko doon nettali. Mhm. mu boo xaw a daanu <laughs> ñëw nag bon alors lu koy indi mooy euh, bi ñuy recevoir seconde di recevoir booru midi une heure la ñëpp doon xalaat ak sama compagnie man dama xalaat daal ne xëy na de ñu añee fa. dara. soo ay honoré soo ay dara soo ay honoré nation grade rek jeex na waaw ñu génn naan ku nekk naan sa waaw gi li mu def nii nag ñu ko ah mooy borom kër gi de dëkk bi la moom moom ñu ngi nii bon am na yéene soo ay honoré bu ki amee honoré la nation. alors am ñu doon wax ni ma ne leen bu leen wax ça nourrit pas son homme ay leen ñaan bu ñëw rek dem ci ñu xëy na yàlla dañuy lu fi. soyez honoré vous qui avez honoré la nation. mu jënd ci làmmiñu chef d'état loolu ku mu doyul loolu doy. léegi nag lii ñëw nag bénéfice suñu borom la loolu laa leen doon wax ñu ne ma waaye yow que taalibe nga taalibe nga. pour defal leen waaw. alors euh, waa football bi ñoom ils avaient droit à une limonade ak une médaille yéen lan ngeen am am ngeen am amoon ngeen limonade quand même ak médaille wala amu leen ci dara yéen dara la ñu leen dara xanaa bon ba kii bon bon kii bu cocktail bu bu ndaw la am na ñoo xam ni bon dañu dem ba dañu xaw ma dañu dañu buudee xaw ma lan mais que liminaat yi naan leen rek am na ay kii tuuti naan leen la. ñoom ñoom ñu ñu ñooñu ñu doon ñu doon xalaat añ peut-être ñoo ñoo ñoo defee noonu. d'accord ah. alors euh, nga euh, continuer sur cette euh, sur cette lancée nag. Mm-hmm. Euh, ñu dem cette fois-ci Brazzaville. Mm-hmm. Euh, Brazzaville euh, nga réussir ci 400 yi. mais jël troisième jël troisième. Ah. Euh, ci 400 euh, bi. Mhm. jël mais jël premier quand même ci 4 fois 400 bi. Ah. qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville. Brazzaville boobu Abdou Seye moo doon entraîneur. bu entraîné wu bu baax a baax a baax a baax alors léegi euh, bu ñu demee ba final fu ak 400 mètres ñu man ñu yóbbu ma couloir 1 dañ ci daw sa kii ay pax yu kenn xamul nekk. boobu yow euh, euh, benn Ghanéen ay Kényan yu ma kenn xamul. Mhm. alors bon bu ñuy wooye boobu temps Lokam la ñu ni Lokam couloir un Amadou Gakou Lokam ma ma xaw a tikkee tuuti Lokam Lokam mu xam nga ni dafa xereñ ni ma dawee quatre fois quatre ba ñëw gis nga ñii la rawoon ñooy daw ñooy dawaat kii bi yoon nag am nga couloir bu baax. ma may leen dix mètres lu indi woon éliminatoire yi. Mhm. dañu am problème problème mooy dañu indi woon euh, mu ngi ci dëgg maa ngi fen Daour Gueye jotewul le maximum ñu changé ko xam nga léegi quatre fois quatre boo boo changé euh, benn kii da koy wutal euh, bulletin bulletin comme quoi dafa gaañu wala des choses comme ça. loolu lañ def mu mu mu ni dañuy dem boole ji quoi <laughs> ñoo ñun ñoo ko génne dugal dugal Daniel Thiaw. dugal Daniel Thiaw d'accord moo daan course automobile la daan def. Mhm. les les vingt quatre heures de Dakar xaw ma lan la waaw ñu dugal ñu dugal Daniel man man ñu def ma départ ma may leen dix mètres ñi ma defaloon final parce que bu ma doon final ak quatre cent mètres. couloir bi baaxul woon kul corde bu parce que cinq mille dix mille dañoo daw ay pax rek. et vous étiez frustré. moom loolu moo may indi loolu. d'accord nga ngeen gagné foofu nga war a nag cette fois-ci dem sa premier jeu olympique bala ñuy ñëw ci 1968. parce que 64 parce que am parce que am na bu 64 d'abord. 64. 64 bi à Tokyo naka nga ko dundee. parce que boobu. xam nga déjà mm-hmm. Afrique. Mm-hmm. imposé wu nga. cette fois-ci da nga bëgg am c'est une mm-hmm. dimension mondiale. mais bii sa première la. Euh, naka nga ko dundee. sa première mission d'aide de coopération France yi dañu woon sélection Afrique de l'Ouest les meilleurs ñu yóbbu leen stage dañu amoon problème problème bi mooy tangu euh, euh, ministre bi dañ ko kii Ndiaye la sant dama dëkkoon euh, Fann alors léegi bi français yi ne léegi suñu sélection on était au nombre de douze. ne bon ñu ni dañuy ñun euh, Lamine Diack woo nekkoon secrétaire général fédération. Mm-hmm. mu ni léegi duñ ko nangu nañu yóbbu huit personnes bu ñu yóbbu benn entraîneur nañu yóbbu deux à trois entraîneurs de fil en aiguille Racine Ndiaye la ministre bi tuddoon alors am ñu dem seeti ko. ñu ko nag ñun bëgg nañoo dem parce que xamul tax dañ leen proposé woon naan bon léegi kenn ku ne dañ la jox bourse. bourse boo xamee nii dangay bàyyi buñ la jox sa salaire da ngay bourse cent cinquante mille deux cent mille mu amoon ci ñun benn instituteur bañ ko laajee lan ngay kii mu ni man fii mu ne ba bon quarante mille xaw ma cinquante mille laay am <laughs> sa salaire pour que pour mën a bénéficier ci kii bi bon xam nga tubaab yi dañu xereñ alors euh, foog mu euh, waa ji seggi la tudd mission d'aide et de coopération moo yoroon affaire yooyu mu ñëw laajte ni leen ba salaire instituteur ñaata la fekk jëkk jëkk nañu jox deuxième fois bu ñu waroon jox beneen mensualité bi mu mu laajte ñu wax ko loolu bu mu ñëwee mu na mu daal di kenn ku ne mu mu yëkkati cinquante mille jox la ba suñu benn kii benn coureur quatre cent mètres un Thiessois instituteur la mhm. mu ne mais ce qui nous a miné parce que ñu yoon ñu ko. Mhm. alors loolu la moo yow ne bon d'ailleurs loolu moo indi euh, démission Lamine Diack sax. d'accord ci affaire boobu la. xam nga yow ñi ko dem nettali nag te te man man man ko fekk ñi la ñi ñëw nettali foofu ma ne ko ñi ñëw ñëw nettali foofu ñoo demoon foofu ñoo demoon seeti minute bi ñun seetuñu ko minute bi parce que dañu ànd ànd dina ne bu ñu leen yóbbuwulee bu lu risque pour ñu préparer les Jeux olympiques de de Tokyo. dañuy dañuy bàyyi dañuy bàyyi parce que yéen moment boobu bourse cent cinquante mille ngeen doon xaar. ñu andi ah, leen bourse cinquante mille. waaw waaw après coow am. coow mu ngoog ah, waaw Lamine Diack gis ci boppam démissionné. waaw fa ñu nekkoon aussi tam bulu riche bi ñu doon dem. Mhm. Euh, on s'entraînait trois fois par jour suñu yeewoo def travail musculaire dem ndékki su dix heures onze heures ñu ñëw entraîner. Mhm. dem noppaluwaat ba ba seize heures dix sept heures ñu ñëwaat entraîner. ngeen nekk ci professeur cette fois-ci ci professionnalisme. waaw bon mieux léegi comme terrain boobu souvent daawuñu ko arrangé man ci laa doon entraîne ba nga xam ne nii eh, ñu dem Valence di def huit cent mètres ñun ma nekkal si Lièvre boobu may jaay moo nekkoon recordman du Sénégal huit cent mètres. d'accord bon en France man ma dem di leen di leen mëneel euh, euh, quatre cent ah, mu mën gis leen ñu nekk si ginnaaw sama ginnaaw cinq mètres ah ma continuer ñu baatu record Sénégal. une minute cinquante secondes. <laughs> bu huit cent mètres. waaw bu huit cent mètres. une minute cinquante ah bon léegi ñu dem aux Jeux olympiques de de Tokyo. d' abord voilà boobu bo bo bo bo Bob Hayes moo nekkoon américain buy de mu mën ci cent mètres deux cent mètres. d' accord alors bon avant ñuy dem mu am périostite parce que fi ñu doon daw dafa dëgër sama tànk yi di la koy métti métti yoo xam ne. d' accord il a fallu que série ñu euh, bu ma def ça ça a marché. Mm-hmm. bon deuxième série bi ñu procure ma noo kayin. deux cent cinquante mètres laa def mu lâché may soox ba agsi loolu lañ ma éliminé loolu lañ la éliminé mais après nga continuer après ma continuer ba ma ñëwee ba faju après ma continuer nga continuer après ma dem ma ñëw nag léegi ñu war a préparer les Jeux olympiques de 1968 à Mexico waaw alors Euh, 1968 à Mexico dafa marqué les esprits wow. marqué aussi sa carrière mmh. d'une pierre indélébile ndax foofu vous aviez des chances mm-hmm. des chances euh, de d'être sur le podium. Mm -hmm. mais malheureusement. Ah. Euh, vous ah. vous êtes euh, ah. quatrième. nga ah. nga terminer sur le ah, pied euh, ci li nga xamante ne moom mooy. quatrième place bi alors foofu dafay andi ay souvenirs yu bëri. Mm-hmm. mais je voudrais d'abord wan la li nga xamante ne moom mooy course bi. Mm-hmm. ndax dellu si nga ci même américain yi solos bi nga xamante ne. Mm-hmm. Euh, course bi. surtout finale bi daf leen ko amaloon parce que dama lay dégg. ngay rappeler ne même l' de basketball. boobu bu États-Unis dañu ñëw guddi gi. di la di la perturbé yeew di perturbé. d' accord waaw bien avant sax loolu bien avant cela dañ ma mayoon bourse. li indi affaire bi yëpp dañ ma mayoon bourse ma nekk institut national du sport. ñu war a dem euh, fond Roma fond Roma bi ma boursier chambre individuelle la ñu def. ñu xam ni ils sont pas boursiers dortoir alors ma am rage des dents. Mhm. ah moo amee rage des dents ñi dindi ma ci bourse bi yóbbu ma ma dem kii loolu moom mu a njëkk a motivé ak suma entraîneur boobu temps Bernard Dibonda moo ñëw jëlee ren. Mhm. suma moo doon entraîné. alors bon mu ni ma léegi lenn ma ne ko de en quoi ce qui certain mooy lii xam naa li koy faj. mu ne ah ma déet noo gàkku ma ne ko déet xam naa li koy faj. fii ma def sama cëmtulaay kàttan français yi fexe nañ ba ñu nangu sama bourse baax na motivation bu supplémentaire la bàyyi ma ñoom rek. donc vous avez travaillé dans des conditions très très. très, très difficiles sans bourse. ah oui alors bi bi ñu je me am na suñu benn waay boo xam ni dinaan waaw yóbbu nañ ñii defuñu le minimum olympique nangam nangam boobu il fallait quarante six secondes pour euh, kii la parce que bu dul loolu am nga droit. chaque épreuve nga indi fa benn nit boo yóbbu beneen nit foog mu def minimum bi ñuy demande requis pour pour mun a daal mm-hmm. alors benn bés muy entraîné foofu rek bu durement nag man xam na lii daal am naa lu koy faj entraîné durement benn jour suñu entraîneur def euh, test compétition ñi dafa amoon brouillard ma def quarante six au quatre cent ko maa ngi doon quarante sept quarante six laa def ba mu ñëwee am ay Sénégal yi doon wax naan boo deful deful comme dafa amoon brouillard. waaw deful quatre cent mètres trois cent mètres la def. booba fekk un champion olympique mu wax euh, Michel Zazi cinq mille dix mille. d'accord mm-hmm. kii il il il a en loolu aussi gën la motiver waat gën ma motiver. d'accord alors léegi man baroon ensuite man ma def minimum olympique bi quarante six. oui ah, dama ne léegi nag euh, euh, ñi doon wax. Euh, noppi bon maa ngi maa ngi dëkk sa dortoir ba laa wax ñu yeewu bon bokk ñu woon euh, restaurant ak ñi nga xamee ni c'est des boursiers ils étaient les privilégiés chambre individuelle ah chambre euh, dortoir moom da gis benn waay bu yeewu rek toujours lii wala indi la problème booy nelaw nga doo mun a sies doo mun a loolu lañ doon loolu laa doon dundee man rage des dents boobu cest à moom nga doon dund maintenant bi nga ñëwee aussi altitude bi poser la problème mais mais mais comme vous dites doctrine boobu dafa nekk mm. ci loo xamante ne euh, euh, dafa euh, en fait dafa dafa ancré ci ci ci yow c'est-à-dire dem ba jeex boobu nga dem final mm. face à trois américains mm. alors ma ma li ma jaaxal mooy je vous ma lay dama lay proposer waat nga xoolaat li nga xamante ne moom mooy course bi dama gis les cent premiers mètres ba deux cent premiers mètres yi parce que yaa ngi couloir cinq Euh, yaa ngi jiitu woon. sori woo woon li event. qu'est-ce qui s'est passé après bi ngeen bi ngeen tourné. waaw ah, bi ñu tourné bon bon pour man dama ne ñii comme ligne droite bi léegi lii kii event rek laa kii. waaw sedduma woon ñoom ñaar américain yi ak xam nga ñii sama ginnaaw bi ñu wiire. waaw bon man pour man euh, ñii jamais duñ ma duñ ma kii duñ ma duñ ma ma mën a lekk si. ma mu ma visé woon euh, li event li event nag dooleem moo ko yóbbu ñaari kii Freeman ak Larry James dañ ko dañ koy dañ koy dañ koy nara dañ koy nara di moom doole moo ko yóbbu pour vous dire alors booy gis nii ah. à l'arrivée ah. nga nekk tuuti derrière mm-hmm. trio américain ah, boobu lan lay def euh, damay leen la may def ni ma bon ma wax nañ ma ko ba tàyyi mënoon naa économiser parce que euh, daw naa ñeenti yoon série quart de finale demi finale finale. waaw muy quatre fois. Mhm. bu ci nekk dama xam. bu bu ci nekk bu ma arrivé dama xam bu ma njëkkee daw Sarr moom ma fa fekk capitaine Sarr fekk ma xam ba ma xamili ko mu def performance bi ma def muy record d'Afrique ma ne ko bàyyi naa dootuma daw. Mhm. dootuma daw dootuma daw. Mhm. mu ne ah déet da nga daw da nga continuer ah waaw man de ensuite bu ñuy def interrogation yi yëpp ma ni euh, américains ñoom wax nañu. ils ont séjourné en altitude pendant un mois et demi ñun est-ce que def nañu vingt jours bulu bu fond Roma dañu demoon rejoindre France yi deux mille mètres d'altitude deux mille deux cent mètres d'altitude mm-hmm. fa lañu joge jógee avion dem euh, dem Mexique ah xam nga pour euh, anecdote bon il nga def par exemple euh, quel une semaine wala quatre jours pour adaptation yi ñëw parce que dina ne def lenn dal nañu le même au Japon climat bi ak euh, fuseau horaire bi. Mhm. léegi am na ñoo xam ne bu bëccëgee ñu ngi nelaw bu guddee ñi ñi xoole man man man daa amoon période d'adaptation boo xam ne c'est phénoménal laa da loolu man amoon moom da loolu léegi finale bi euh, en demi-finale maa série quart de finale demi-finale yëpp maa doon raw demi-finale bu ma bàyyi woon ma li may continuer parce que gis nga effort 400 mètres nga daw ko bu yéex nga daw ko bu gaaw soo accès sonn. Mhm. loolu laa sóoraale woon bu sonn daal naa sonn benn yoon mo une fois pour tout. d'accord alors bon bu ma desee 50 mètres. Mhm. mu ma li euh, may yuuxu ralentir ralentir boobu gaaw si ginnaaw mënoon naa mënoon naa continuer bon cassure boobu je crois que moom laa nekkaale ba xam ni daf ma désorienté tuuti. parce que nit ki lu mu tàmmoon di ko def. Mhm. soo ko ko bàyyiloo rek mu am tuuti ay ay ay euh, euh, kii contrainte. d' alors dama lay wonaale sax li nga xamante ne mm. moom mooy parce que ce jour là aussi. Ah, ah. dafa nekk bés bu am solo. Ah. ndax euh, ces trois américains sànq ñu ngi koy wax Lee Evans et dañu dafa am aussi benn ci wàllu taarixu athlète. mais aussi ci lutte contre la ségrégation raciale benn waaw avec avec mouvement boobu di Black ah. Panther ah. Euh, benn euh, tax benn taxawaay bu am solo buñ ci def ah. ndax euh, biñ leen di jox seen médaille ñi ngi sol seen beere ba pare yëkkati seen i yëkkati seen loxo seen seen seen point gante waaw xam nga lu ko indi mooy ñoom seen wàll boobu affaire yi nga wax racisme boobu ñaareel ba ba trois heures du matin naruñu woon daw dañ la doon boycotté waaw parce que alors il a fallu que kii euh, le le le le recordman ancien recordman kii euh, moo leen moo leen moo moo ko moo leen wax ni foog ngeen def foog ngeen lutter comme kii ngeen ne li ngeen li ngeen daw mais ñu ni bon léegi ñoom dañuy def bu ñu dañuy sol seen béere ak euh, seen loxoy gante dañooñu ko def mun leen d'accord où est le problème l'essentiel na ngeen na ngeen wane seen bopp rek bon de fil en aiguille noonu la affaire bi demee mais sinon ñoom demoo découragé woon nañu tout à pour bàyyi. d' accord waaw alors. Jess Evans moo leen ni leen daw leen. oui parce que vous aviez dañu amoon message bu am solo. boo xamante ne dañ koy véhiculer ci àdduna wërngël kër. bi ñu jógee fi nga xamante ne moom mooy 1968. Euh, euh, mu nekk souvenir bu am solo. ndax déjà de record sur le plan continental mm-hmm. da mm-hmm. ko da ko da ko battre. Mm-hmm. ak ak 45 euh, secondes. ñu ni quarante cinq un centième la. un centième de moi c'est pas mon problème. bu yóbboo sax ñu def une li ma def moom bu ñu ah, jëloon archive bu Mexico yi comité olympique. Mm-hmm. ja euh, mexicain yi danañ seet mais quand même c'est pas grave. waaye mais bu demoon bu ñu dindi woon euh, euh, bi moom kon mu gën a métti di ça fait que cinquante cinq ans mënuñu battre le record. record. fii fii ci Sénégal. le record national. alors bi ñu fa jógee. ñu dem yeneen Jeux olympiques. parce que dem nga aussi après en 1972. waaw dem naa ci fi nga xamante ne moom mooy Munich. Allemagne waaw en Allemagne à Munich. Euh, mais foofu. foofu mooy catastrophe ba nag. waaw ah, ah yow catastrophe nga ko. catastrophe laa ko tuddee parce que mënuloo am ñoo xam ni dem nañ ba final nga war leen préparer nga yóbbu leen boo xam ni œuvre de bienfaisance des gosses de 12 ans 7 ans 12 ans. dañu bokkaloon benn chapelle boo xam ni dañ ko reprendre dañ ko abandonné woon reprendre ko ñu dëkkal ñu benn hôtel boo xamee ni euh, ci en Allemagne euh, di doon Scheid la ko dëkk ba tëdd les meilleurs athlètes foofu lañu daan lañu daan kii yóbbu leen yóbbu ñu hôtel yóbbu ñu hôtel boo xam ni xam nga def naa trois étoiles la hôtel ba fanaan lañu daan def ak bu ñu xëyee ndékki añ añ ak reer mm, mm. ca centre boobu ñuy ñuy ak les bien bienfaisance yoo xale yooyu doon folo pour anecdote parce que euh, entraîneur u boxe Idrissa John moo jëkk kaas ni lii c'est pas normal euh, Allemagne bi ñu fekkee ni ne waaw yéen trois finalistes mu ñëwaat fii nga xam ne eau yi xam ne ration yi xale yi lekk bu nga ci lekk ñaar moom lañ leen doon jox mais souvent souvent pour mu am tàng de déedéet organisé woon seen campagne boobu. Ah, kooku tangu tangu Lamine Diack la mu envoyé benn kii mu pour ñu toppatoo le gars là rien fait de de de de bon Idrissa Seck moo Idrissa John moo leen ko leen fii ñu ne c'est de œuvre bienfaisante nangam après bon nit ñi semaine bu mujj la ñu commencé lekk foofu noppaloo xam lu ñu doon def su demee entraînement le matin. Ah. force de réception au au son en ah. ah foofu la ñu daan tëdd ñenn ñi dem tëdd ci kaw tribune nelaw ba yeewu daal di commencer entraîner le soir. d'accord mu nekk condition yi difficile condition très difficile. peut-être ñu xalaatoon ne. Ah. boo nekkee ci quatrième bi. Ah. c'est-à-dire ci pied podium bi. cette ah. fois-ci xëy na. di nga nekk ci podium bi mais malheureusement la préparation n'était pas du tout la d'accord am ak boxeurs yi la ñu yóbbuwoon. yéen ñëpp waaw <laughs> vous dans le même alors euh, bi ñu fa jógee doyen. mu mel ni danga am lu la metti torop hmm. nga. mel ni ku bàyyi mm. li nga xamante ne moom mooy athlétisme mm. mais diggante période boobu mm. ak ba bi ñu yeggee 1972 euh, qu'est-ce que vous avez gagné peut-être à part salaire bi ñu la chef de l'État euh, leen ditu bon boobu temps maa maa maa ngi liggéey utaloon ni ma liggéey euh, animation rural boobu Thiam Habib Thiam de de dama doon wax kii Racine Club de de de de Paris ñu bëggoon ma jël yóbbu ma IPM informatique ñu ni mukk ñu demandé ko au président la République ñu jël sama passeport ñu ni doo dem dañu mujj woolu sama ñoom sama papa nga ci dëgg maa ngi ci fen euh, Habib Thiam nga ci dëgg maa ngi ci fen ministère ñu dem. pour nga nekk un athlète professionnel. waaw bu ñu bu ma yóbboon France. Senghor bañ ñu bañ mu dem. bon lu ko lu ko indi moo yóbbu ma foofu de de bon de chef bon alors bu ma yóbboo foofu man ma mission d'aide et de coopération di def avant soixante dix mille neuf mhm. ñu def mission de et de coopération les meilleurs deuxième degré la ko defoon Abidjan. maanaam dem si yàlla si Mansour ak ku ñuy wax Ndagga Fall bi daan def souvent longue de sept metre d' éducation physique yóbbu yëpp. ci la ñuy sélectionné yóbbu ñu France pour ñu def troisième degré foofu itam alors man Jo Diop. football waaw. Euh, Mbaye Guèye euh, Bisnel ñoom ñëpp ku ci ne di jaar na équipe nationale basket ak Thiaw Diaw moo nekkoon gouverneur euh, militaire la woon moo nekkoon gouverneur kii assemblée nationale. d'accord militaire la woon. moo doon yore foofu. ñu yóbbu leen ngeen def ñu yóbbu def def troisième degré. troisième degré am euh, diplôme français alors normalement waroon nañu mun a exercer ñu ni ñu léegi daal su ngeen jëlu la nationalité française ah duñ leen mun leen jox kii euh, carte d'entraîneur mais seen diplôme diplôme français fédération française mais que finalement bon Lamine ni leen ah non bon pour anecdote comme anecdote Jo Diop comme moom il était proche de Lamine parce que Lamine moo soon a nekk directeur technique bu football mu ne ko mais yow amul guloo diplôme di wax naan nañ la jox xaw séeréer nangam mhm. nag. kon fii daanaka ñu ñëw ñu ñu ñibbisi. ngeen ñibbisi noonu. ñu ñibbisi. ñu amee suñu diplôme. ngeen am ngeen am seen diplôme cette fois-ci en tant qu'entraîneur man ci lañ mën a affecté au lycée Blaise Diagne. d'accord pendant les heures d'éducation physique. bon ah, xam nga bu ñu commencé bu saison bi commencé bu l'école ubbee. éducation physique dañuy def commencer éducation physique. Mm-hmm. bon léegi l' ensemble des huit professeurs yi nekkoon foofu. Mm-hmm. ku nekk yoon man jox joxuñu woon classe dama doon détecter des appels. d' accord pendant l' éducation physique. mais am na lu ñu ne travail hivernal ba ñu doon def. Mm-hmm. man maa ko diriger ñoom ñu surveiller. da ko doon diriger. en tant qu'athlète de haut niveau waaw haut niveau. fa organiser fa cross au niveau du lycée. ba proviseur bi naan ma mais bu amee fii en accident man ku ñu am la ñu Où est le problème D'accord. Nous sommes d'accord. C'est même gosse, comme anecdote. Récemment, Abdoulaye Diaw dañ ko dégg muy wax naan kër gaa ko day senn sama jabar def cinq ans AVC kër gi di senn ñu dégg ko ñu ñëw voilà lépp la ñu defaraat. d'accord LBD lépp lépp pour électricité boobu plomberie lépp carrelage yëpp avec euh, l'appui de mon jeune frère bi nga xam ni mu ngi décédé le 6 décembre. parce que entrepreneur de bâtiment la. d' accord ñu defaraatal la fi nga xamante ne moom mooy sa kër mais doyen. Hmm. dama si dellu si waat ci condition yooyu. parce que hmm. invitation bi aussi bokk na ci prétexte. Hmm. nga xam ne ku ci mel ni sa doom sa sët kenn doy mi nga xamante ne bi mu làkkoo léegi yàggul def na à peine deux semaines. Euh, nga ne jamono yooyu. ba presque bi ngay bàyyi. Euh, en 1976 bay nekk entraîneur. qu' est ce que le Sénégal a fait pour vous. ah à part les décorations rien rien du tout leen de xam naa ko ci Lamine Diack mu nga sa dëgg maa ngi fay moom yóbbu maak 2008. loolu c'est normal ci yoon normal ci yoon ensuite ensuite dara defuñu ko gisuma ko parce que benn exemple boo xam ni ñu ngi ci chantier un ivoirien boo xam ni mosuma ko gis ci Adama ak Awa moo ni léegi day def coupe Amadou Gakou il a l'intention de donner un million Mhm. cinq cent mille meilleurs athlètes jigéen cinq cent mille meilleurs athlètes jigéen góor boo war def concours boo nga xam ni kii Amadou Gakou pour xale yi ñëw ci jàngat yi kenn ku ci nekk concours bi def ko concours bi bon finalement bu ñu ma ko waxee euh, amicale des anciens athlètes daal ñëw nañ ko yore man du ma ko jox soo famille pour l' athlétisme sénégalais bénéficier ci parce que ñun li ñuy motiver mooy relancer l' à basage pour ñu jàppale xale yi jàppale. moom moo jël initiative un Ivoirien moo moo pur par fraternité matin le suivre de weer mu tase mu ngi nekk Canada mu tase euh, ku ñu wax euh, euh, Birima Gueye photographe la woon niveau di du du ministère par Majib Diène. d' accord moo koy moo yoroon kuy volet boobu la. alors moom la gisante waxtaan ak moom ni leen léegi dama doon suivre kii wala gis naa li mu def léegi man dama bëgg a honorer ko man à mon niveau nii laay def nii laay def lii laay def. su weesoo loolu. Ah. amul benn reconnaissance. fu mu jógee leen da xam naa ko suma kër man maa BSS maa fay ba boo jeexal avant muy retraité quatre-vingt-quinze. grâce à votre salaire waaw grâce à sama salaire bon leen de xam naa ko ci aussi en dehors de ça Moussa Sy. benn waaw bi ñuy liggéey sama kër bi ñuy liggéey bi ñuy liggéey sama kër. waaw moo fay totalité trois mois yi ma yi ma toog yi ma yi ma war a dul yëpp moo ko fay. te chaque année da doon organiser cross boo xam ni amoon honneur sargal ma. d'accord moom Moussa Sy def na loolu après dem na ba. jël cross tuddee la ko. Ah, mais moi je parle de l'état ah. du Sénégal. cest dire yow 400 mètres. Ah. ba léegi yow yaa détenir li nga xamante ne record bi. def na demi siècle c'est-à-dire def na plus de. 50 ans 55 ans. maintenant hmm. état laa wax. Hmm. Sénégal hmm. réellement. lan la la rendre comme honneur. ah du 2012. woo nañ ma ni dañ may décoré décoré. waaw officier. ma ne moo ma ñëwee ñu décoré ma ne mais officier am naa ko 68. ñu ma indil les preuves ma dem indil leen yëpp fekk dama taxu ma indiwaat yëpp jox leen ba pare bind la sorcellerie ba suñu jonni tey woo toxatu woowuñu ma sax. c'est-à-dire xam nga yow da nga fekkee. quatre présidents yëpp. macha allah yàlla may na la loolu. xam nga Senghor moom wax nañ ko. waaw c'est-à-dire Abdou Diouf recevoir moom moom moom kàddu yu leen wax leer na. waaw ah, ah, ah. et benn moment vous aviez la possibilité. am la nationalité française mais defoo ko. déedéet da nga continuer ñëw fii. di liggéey. Euh, en tant que euh, peut-être kuy détecter. ay talent fi nga xamante ne en de ça. en de ça ou bien cest à de ça. man dama jë bi ma ñëwee bi ma ab kii jëm jëlee euh, avant may dem promotion humaine RTS laa jëkk lañ ma jëkk embauché. d' accord liggéey nga RTS RTS moo RTS mooy euh, garage GG la woon avant l' indépendance. après ñu. lan la fa doon liggéey régie des du Sénégal régie des transports du Sénégal moo tax RTS. d' accord waaw. lan nga fa doon liggéey. léeg-léeg man man nekkoon euh, bureau magasin yi nga xam ni pièces détachées yi nga xam ni. moom la oto yi di utiliser yëpp maa nekkoon magasin bu foofu avec en étant adjoint de du chef de de de de bureau. d'accord ah. léegi. Ah. ci salaire yooyu ñaata lañ la doon fay jamono yooyu doyen. bon euh, pour pour pour pour moo fàttali quoi est-ce que mot na cent mille francs. je sais que man bi ma bi ma ñëwee ba di di exercer comme euh, éducation fisique waaw dem na dem naa ba léegi quand même qu'on quoi cent cinquante mille francs jamono yooyu cent cinquante mille waaw daal léegi bon boobu léegi nag bon su suma retraite bon xam nga ko ñëpp ko xam ni retraite li am bon moi je bu ñu révaliser Ablaye Wade moo ñu yokkal les les euh, recettes euh, kii retraite FNR Fonds national de retraite cest à bi nga retraité euh, Amadou Gakou champion du Sénégal euh, quatrième Jeux olympiques de Mexico euh, détenteur record 400 mètres ñaata nga doon percevoir sa pension pour ne pas être bon pour son pension bon euh, cent quarante mille ans bon ñu léegi léegi avec augmentation mun na dem ba ba cent cinquante mille bon par trois mois wala chaque mois déedéet chaque mois le fond du problème qui se pose mooy lenn pour anecdote comme anecdote sama doom benn doom bu jigéen laal may ko sama jarbaat boo xam ne maa ngi yaayam ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. mu yor leen ci kër gi sama kër. mécanicien de la rue de bon tu vois tu vois me dire ñoom xam nga amuñu salaire. finalement noonu lañ def affaire noonu laa def de alors li ma am nag su soxlaatuma yére soxlaatuma dara pour kër gi am dund kër gi am dépense et puis point c'est c'est mon problème à sa ça dem julli ji fajar jàkka ji. jeex bu mu bu mu yëgalee loo xam ne mun naa ci teew. ma teew ci bu ma yëgalee loo xam ne mënuma ma téléphoné voilà. doyen vous vous sentez pas frustré. ah xam nga man de gëm naa suñu borom lépp lu joom jaam bi def. nit du lekk lu mu muur a mu wërsëg. je suis croyant man toujours damay wax ni taalibe la doom laa doon wax amicale des anciens de bii nga xam ne dañoo nommé comme comme président. mais loo nekk taalibe nekk taalibe. waaw est que xalaatoo loon. sa dëkk bi nga xamante ne. waaw daw ko ci brouillard ah, waaw parce que sànq yaa ngi wax. ne da nga gaañu woon. ñu pikiir la mais genre yooyu dafa mel ne genre infiltration la c'est-à-dire genre dopage la. waaw oui loolu yëpp dundu nga ko. ci sa ci sa ci sa carrière. Mm-hmm. pour sa dëkk. nga ñëw toog. doon xaar peut-être reconnaissance. mais gisoo ci dara. ah qu'est-ce que ça vous fait. maa de dem dem dem un bon croyant àddina jamono jii ñu nekk képp koo xam ne li nga war a def nga def ko macha allah boo deful la le contraire peut-être euh, waxay indi wax waaw parce que man damay faral di wax nii ni euh, wolof yi dañuy wax dompat sax ci sot la bokk. Mm-hmm. waaw defuñu ko vraiment xaw xaw ma lu ma leen di lu ma leen mën a wax parce que nit ki lépp loo xam ni rek suñu borom def na ko pour mu am boo ko xañee bu dul fii di fële rek bu dul fii di fële rek. d'accord waaye yàlla def na ma nag nag dee loo xam ni. Mhm. avec les les gens de lycée Blaise Diagne yoo xam ni yoroon naa leen ci éducation physique yooyu ma dañ may nemmiku waaw je ne suis pas je de ça. waaw si moo tax. vraiment bu ma demoon ba nga xamee ni gëmeewu ma sax dina revenir vers parce que am na ñoo xam ni fu ñuy fu ñu ma yëgee ñu ngi may ñu may ñenn fu ñu yëgee ne yaa ngi ñëw ñu ngi ñëw jàppale la d'accord dama lay wan benn réaction ku ci mel ni kii boo déggee méttiwul na parce que Europe boo fa nekkee nday nekku fa bàyyi nekku fa rakk nekku fa kenn nekku fa nga yor doom te ko ci poussette ànd ak moom dem entraînement bu jooyee nga bàyyi sa entraînement raxas sa wel nàmpal continuer sa entrainement tubaab bi dañ ma doon xool ma yéem leen loolu mais may ñafe di ñafe 2000 c'était en 2002. oui ma ñëw championnat d'Afrique Tunis. coach bi ne ma tu peux gagner les 100 ma ne ko comment mu ne ma tu es très forte ci laa def euh, qualification yi. Mhm. dernière et ma daanu mu ne ma soo daanu di nga battre koo Sénégal. après nag ci laa ci continuer euh, veille bi j'avais le genou enflé mais ma yeewu dem ci hôtel bi wut ndox bu tàng mhm. parce que tout le temps dañ may woowee sax maire groupe bi maa yóbbu karité maa yóbbu puso maa yóbbu lépp ku soxla rek ñëw ma jël karité bi nag di ko damp di ko def ci ndox bu tàng bi di serrer les dents parce que ndox bi tàngoon mhm. pour deret bu dee boobu dañ euh, le lendemain beneen jour bi ci laa daw final yi ma jël troisième def quatorze 13 79. d'accord waaw kii gis nga kii kii yàlla bu mu amati ma ñaan yàlla ci sama ji ma ñaan yàlla bu mu amati parce que kii lii c'est une honte tout le monde. déggal si dégg la ko effort yi mu doon def. dégg la kii émission bi mu ko defee la laan demee ki ko doon entraîné laa ne demal nga seeti ko muy Christophe Sadio. Christophe Sadio Christophe Nassalan Christophe Nassalan moo ko entraîné dem na foofu maa leen bi mu kiiyee. am na ñoo xam ni incompréhensible parce que dafa amoon ñoo xam ni euh, <coughs> bi li affaire bi amee mu attaqué leen bon nit ku la attaqué yow nga war a def li nga war a def xaw ma kan la attaqué dañ ma ko doon wax ku la attaqué nga xool situation bu mu nekk <coughs> ak lu tax mu attaque la du dëgg bon à force de cela nit ñi kii ma ne kenn nit ki euh, jugement de valeur ngay def ci doomu aadama mu def cemtulaay kattan euh, ce kattan ça la comporte comme champion d'Afrique nga koy neenal ci dara tant soit peu waroon nga def sa cemtulaay kattan wala nga yuuxu ba ñëpp dégg la ni ko ga nii kat wax na kii dem na fu nekk parce que nii nii nit ñi euh, dafatuñu média yaa ngi fii foo dem wax li nga xam ni euh, ci njekk ak teraanga wolof yi dañuy wax ni wax dañ koy wodd nga wodd li ngay wax ñu leen kii kat def na nangam ak nangam kii na ko buñ luñ ko amee ñu fay ko mais mënuñu comprendre que nga amel nit bor wala nga ngay dem di maye c'est inadmissible kii waratu fi am waaw wax nag yaa ngi jamono côté autorité yi parce que lenn am na mooy am na groupe WhatsApp bu ñuy wax rond central ñu ngi ciy yëngatu bu baax statut la ñuy amul ñun bu ñu amoon statut boo xam ne ni ancienne gloire la nangam nangam bu dul dara ñetti dërëm yi ngay am foofu da ngay da nga parce que wu na la war ni def naa def naa nangam bi atteindre naa tel niveau ah sama dëkkat lii la ma defal da nga koy tiitaroo man damay tiitaroo ah ma ne j'ai dit cinquante ans de record kenn mosuma sax big bu ñu ma ma mosuma ma mais samay kër la ñuy defaraat de A à Z j'étais satisfait et ce sont des anciens élèves du lycée Blaise Diagne LBD la ñu tudd d'accord fa la Ablaye Seck ancien ministre de l'agriculture fa la Thierno Gueye nekk. ñoom professeur Abdoulaye Sakho et Mokhtar Sylla tout tout tout tout mu nekk lu am solo. mënu euh, leen fu ngeen nekk ngeen défendre faraaya national te Sénégal aussi li li ko war ci yéen du leen ko delloo loolu euh, ñun moo taxoon tey invitation bi rendre le hommage fàttali sénégalais yi ndaw yi nga xamante ne peut-être 2000. la ñu judd ou bien deux mille vingt ñu xam ne am na ko xamante ne il s'est battu quelles que soient les conditions très mm-hmm. très très difficiles précaires pour rehausser li nga xamante ne moom mooy de drapeau national alors dañu nekk ci njeexitalu mois de février muy weeru euh, mbëggeen weeru mbëggeel ñu dugg ci weeru jigéen ñi ndax mm-hmm. weeru mars la mm-hmm. moo tax ma bëgg la wan photo bi eh, eh. yow la akkan waaye maa sama sama sama soxna mille euh, euh, euh, dix-huit la gaañu octobre mhm. alors bon ku ma dimbale woon jàppale man jarbaat la ci Ablaye Diaw waa Ndar la mhm. alors am na loo xam ni def na ko man sama wàll boobu wax ne du ma am problème de ba mu dëddoo ba léegi problème bu ma am suñu borom day jékki-jékki rek la billaay azim te lenn wane na ku sell maa koy ñaanal fu mu tëdd yal na naa daan firdaws parce que euh, li mu def da daan toog sax ñu demal jàll ji tel tel ak nangam nangam dama jéy di jëre ma ne waaw mais man maa mu ne déedéet nangama nangam dafa ci bokk ci mbooloo din ñoom ñëpp ñoo ko nawoon moo tax bi ñuy def ay jàng foofu annuel waa daayira bi nga xam ni ku ñuy wax Baba Gissé ancien douanier moo ko def jël photo mu def ko ci moom laa def boo sama kër boo duggee moom laa def ci mur bi sama mm-hmm. buntu nekk xale yi ma la man la déedéet man man nit day am ngor gore wet gore wetali ku nag lii am na ma ne je me disais que tout temps euh, lii moo lii ma ko doon defal man ma ma ma maase def lépp di koy nekk ci suivre ko dew ma amoon beneen été lu dul moom ay kii am nañu man de suñu ci ci goro bi deful ci euh, xajalul kenn ci jabar man bu ma leen xajaloon fu ma jëm kon man du ma koo xam ni su ma jabar yaram yow sutante suba ngoon takkusaan ci wetam laay nekk. d'accord vous soxla tout le temps à ses côtés. voilà à ses côtés. moo tax moo tax yàlla du ñu bàyyi. Mm-hmm. du ñu bàyyi ca kanam rek wax. boo gisee image am bi. lan la lay fàttali. ndax euh, da ngeen yàgg kii bu kii bu ma jógee màkk la. deux mille deux deux bu ma jógee màkk la ñëw delloo te kenn du kenn du fàtte sa bopp waaye gis nga nag suñu boroom il faut se le dire lu mu soxla bu soxlaa ñëpp ñàkk kon nag lii bu ara kër yëpp lay dugg. Mm-hmm. alaaji bu saax doon na wax ni ku bañ a dee moom am naa garabam ñu ne ko lan la mu ne bul juddu. mais dama dégg ngay wax nga ne très rapidement ci quelques ah, secondes ah, ah. elle vous a accompagné ci sa carrière loo réussir lu bëri mm-hmm. c'est c'est en partie grâce a elle elle waaw da ko def xam suñu kër lañu daan moom rue 22 angle 23 fa la atteet yi bëri daan kii xam nga fu ñu tuddal euh, euh, kii bi atteet bëri foofu lañu daan ñëw bu vendredi mu mu mu mu mu def leen njar di def ataay ak lépp ñoom ñoom ñoo ko xamoon boo gisee boo ko gisee bañ ñu ngay gis ndeysaan waaw am na suñu benn anecdote benn waaye bu fekk terminus su kaar yi mhm. ni ma euh, Amadou Gakou kay ma ne ma ma ne ko mais yow yow bala ngay wax takkal jabar xam nga xam nga fu may fanaan est-ce que xamuloo ni man suufu ronlal gi laay fanaan. <laughs> ndeysaan alors voyez les gens xam naa peuvent s'étonner parce que à 83 yaa ngi dem di dox say activité di waxtaan c'est quoi votre secret ci ci tënk rek waxtu wi ci tënk mooy lenn xamoon naa ko man dama doon teel a yeewu anecdote pour anecdote dama doon départ fii travail hivernal xam nga fu ñu doon départ école police Bourguiba Yoff Ngor Wakam terminé Soumbédioune deux fois par semaine man ak Mbaye Ndiaye ak benn euh, ak euh, Daniel Thiaw d'accord donc c'était une vie saine. Ah, une hygiène de vie boo andi ba léegi. mais mais maman bi comment comment vous faites pour maintenir la forme. ah bu njëkk ba daanaa dem plage di di di di di entraîner. mais à chaque fois bu may lekk du ma gaawewu je dors beaucoup loolu mooy secret bi. d'accord te itam philosophiquement àddina dama ko jël nii que moment bi ñu fi nekk. dañuy def suñu cem cemtalaay kàttan suba ba ngoon jot nga xool li la yàlla santaane nga def ko nga def ko loo ci manqué loo nga jéggu jéggulu ko merci beaucoup jërëjëfati kàddu gu mujj gi kàddu gu mujj gi mooy Euh, d' abord di la ñaanal fanu gudd. merci beaucoup wér gu yaram làq fa yàlla boo gis dara ci li ngay liggéey. nga avancé ba ca kanam. yàlla bu génn séddale dara sa ginnaaw. seen télé bii. Mhm. ca kaw ca kanam. incha allah incha allah incha allah. jërëjëf merci beaucoup donc c' était un numéro spécial si près si loin qu' on a fait avec le cœur. avec euh, l'ancien international sénégalais Amadou Gakou yow tamit ñu lay ñaana yal na fi yàlla bàyyi bàyyi bàyyi la fi ba si kanam ak kanam ak kanam grand merci à l'équipe qui m'a accompagné team bi maa ngi janoog Issa maa ngi ànd ak ñi ngi ànd ak kebe Eh, di massaw aussi eh, Papis di ko jaal waajuram wu jigéen yal na ko sunu boroom xare ajana di ñaan ndax ñi ngi génn ci li nga xamante ne moom mooy appel wooteeg Seydina Limaamu Laay al Mahdi dugg ci li nga xamante ne moom mooy mu sunu mbokku chrétiens yi ñuy ñaan lépp lu ci eh, doomu aadama jaamu sunu borom yal na ko sunu borom nangu donc on vous donne rendez-vous vendredi prochain même heure même chaîne toujours eu le même plaisir jërë ngeen jëf On a passé un jour ensemble, je veux plus que ça. Et tout le oui.